alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalina amin wa man biha daxala fi amrin fala yakunu xaa'iban wala munsafila nasartani fa innaka nasiru mahawta ay bi innaka albasir zuma salaatu alal muxtaari min mudarin xayril bariyati min baakin wa mubtasimi lil mustafa kulliyati kulla sana matan salatan wa hababil asana ya rabbana habli bi haqqil kawsari yumnal hayati wa ujri kasri amin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kilifa yi bokki jullit bokki taalibe yi taalibe di mbokkum taalibe ci ñi ci des Moustapha Seck Baye Fall mu sëriñ am ni xadi Fall mu sëriñ Assane Fall moo leen di nuyu di leen nuyu ci ndigul sëriñ bi muy sëriñ Bassirou Fall alquran ak jëwriñam yi nga xamante ni ñoo ko nekkal da ko saytu liggéey bu màgg bu tedd bu sell bii di liggéey bu ngërëm bi nga xamante ni am murit rab wi gën a rëy kii wi muy rëbb muy ngërëmul yàlla te ku ñu gërëm ku mu gërëm nga am ngërëm ndax ku baax ki moo wax ni riddan wa rahmatan di badi xëyra mina dunya wa ma fiya jami am àddina di ci biiram am ngërëmul yàlla gën ba ko saaman ci afaal amee nag ngërëm loolee ñuy màggal bisum ngërëm li teg ko ci loxol ku ñu gërëm ay kilifaam teg ko ci mu sëñ Mamadou Aminata Fall ci xalifaam jël jël bisum ngërëm bi teg ko ci loxool rakkam ju baax jii di taalibeem di sëñ Bassirou Fall alxuraan yal na yàgg te ànd ku wér muy géeju ngërëm sëñ Bassirou Fall alxuraan yéene mu woon ci barabum ngërëm bi barab bii nag barabum ngërëm la nit nag bu dee wut dara te bëgg ko am da koy wuta ji fo am fii ne ngërëmul yàlla am na fi sëñ Cheikh ndigal Fall ma sëñ Cheikh Fall góor léegi laa ko ko wax dafa wax lu rëy te loolu mooy yoon wi sëñ si ndigal Fall dani bay reb yoon wi muy liggéeyal yoon wi bay reb yoon wi mooy liggéeyal yoon wi ndax bisum ngërëm bi ñëpp di toppatoo lu ko may borom muy liggéey muy maam Cheikh Ibrahima Fall adduna sépp war kap fu nekk ñu ngi ko fay màggal mu te mooy bay yoon wi sëriñ Bassirou Fall alquran lu ko lu ko mën a jotali ci bis bii muy liggéeyal yoon wi ndax sëriñ Bassirou Fall alquran dani man Bassirou Fall du ma suuxat ab car de bàyyi ab datt dattu garab gi rek laa su ko te mooy Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridina kon sëriñ Bassirou Fall alquran jël gi magam ju baax ji jël bisum ngërëm bi gis nga Mamadou Fallou Fall nu mu ndigal yal na yàlla yokk ay leeram teg ko ci loxoom mu di ko dundal bëgg ñépp am ngërëm dina woo ci géeju ngërëm ba woo na ci nag ci bare bu ngërëm muy fii ci jànnatu nag tey ndax maam si Ibrahima Fall ba mu liggéeyalee ab sëriñam ba mu gërëm ko Daaru Salaam la ko gërëme fukki fan ak juróom-ñaar ci aw maa ngi ñaanal sëñ aadama Adama ñang wakkaana aktan ndax li ci ëpp li ciy xëjul moo ko dox ba Baye Moon Njaay tomb deel ne ko bis ba maa ko xam ndax man Moor Njaay maay bës sëñ ma Samba Njaay wàqi ba sëñ ma Samba Njaay ni ma Moor Njaay ma ne ko faal mu ne ma ndax xam nga bis bi borom Touba gërëma si faal suñu sang bi nee man ne ko bëgg naa koo xam ne njaay nee mu ne ma lii nga may defal muy di ma bës maa ci Cheikh Ibra Fall di ko bës di ko bës ba ma ne ma Samba Ndiaye ma ne ko Fall mu ma ndax xam nga bis bi ma sëñ Bamba gërëm mu ko bëgg naa koo xam ne Fall mu ne ma fukki fan la ma gërëm ak juróom-ñaar ci aw gàmmu ca Daaru Salaam daal di ne daal mu muy bis boo bii nag topp ci altine te kuñu ko def nga mer sëñ ma Samba Ndiaye mbaq wàq ni na Cheikh Fall loolu la ko wax bis bi topp ci altine ku ko def nga mer ne maa ko di talaata mu ne ma waaw doom bis boobee nag mooy ngërëm lu jëkk la muy aama wa sësin boobu yoonu murit juróom benn at la yoonu murit am borom Tuubaa Xaadimu Rasuul jël ngërëm li jëkk jëkk bàyyi koo ci moom jóge ci yàlla tabaaraka wa taala jaar ci yonent bi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñëw ci moom ngërëm loolu mu gërëm ko maam si Ibrahima Fall Baabul Muridiina ba mu gërëmagul kenn daanaa dégg alaaj Ibu Saaxo ku baax la wan daan wax ni boo doon gas am pax téeméeri jinax na ca nee na jinax ji jëkk tëb rek mu tudd jinax jëkki tudd jinax bu tëbee rek ñu ne jinax jàngoog jeneen ju tëbati duutul tudd jinax jeneen rek la tudd jeneen na ngoog jeneen na ngoog jeneen a ngoog waaye maam ci Ibrahima Fall moom la borom Tuuba jëkk a gërëm ñu ni ñu ne si maam si Ibrahima Fall suñ Touba gërëm na ko ngërëm lu tëwati nag baneen ngërëm a ngoog rek baneen a ngoog baneen ngoog baneen a ngoog waaye ngërëm maam si Ibrahima Fall muy ngërëm la nag moom mooy taawum ngërëm la waaye ba mu amee ngërëm loolu ci amawu sësin yoonu murit am juróom benn at nga xam ne yoonu murit da fàtte wasasin ndax ci la borom Touba gërëm maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ci Darou Salaam ci la borom Touba sant Touba Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke alayhi salaatu wasalaam ci la gane jamono Cheikh Mamadou Falilou Mbacke ci la gane jamono muy ñeenti yi di ama wala sëriñ yoonu murit am juróom benn at juróom benn at la leen yoonu murit màggee saa maam Cheikh Ibrahima ci mbindum ku baax ki Cheikh Momar Talla Fall yal na yàlla yokk ay leeram maa yor mbind ma nag sëriñ bi ko ëpp sëriñ Seera Fall bi ko ëpp sëriñ ñam gërëmee da yebal ci teeru yebal ko ndar mu nekkal ko fa nekkal ko fa digganteem ak taalibe nekkal ko fa digganteem ak gouvernement bi bëggul benn rambaaj dox ci diggante bi lu fa bëgg a ñagas mu ritaxal ko lu fa nar a ñaaw Seera Fall rafetal ko ne ba jubam googee ca la ci gouvernement France kayit wi jëlee Serigne Touba gànnaar indi ko jolof mu dellu amaat ci sëriñ bi ci ca tubaab ya kayit bi jëli suñ tubaa jolof indi ko njaareem te it bi suñ tubaa nekk ci géej gi man man dossier bi bi nga xamante ni moom la doon war a contrôler diggante suñ tubaa ak tubaab yi maam si Ibrahima Fall mooy doon dossier bu di ko contrôler de ci gouverneur général mu di ñëw ci gouverneur du Sénégal gouverneur général dégg nga dem ci ministre de la colonie ba ci président France dossier boobu maam si Fall moo ko doon moo ko doon contrôlé ba si sëñ ñibbisi mu di ko contrôlé ba sëñ Touba jóge ci euh, fii ci Daaru Manaan dem gànnaar mu di ko contrôlé ba mu bañu jëlee ko ci gànnaar ci ndigal Cheikh Fall indi ko Jolof mu di ko contrôlé ci si Cheikh Fall ak def def lu yaatu la lu ci nekk doy na histoire jëlee ko Jolof indi ko Njaareem kon Cheikh Fall muy sëriñ bi li sëriñ moom sëriñ Mor Mbaye si sa wax loolu rek muy dégg maa ngi nuyu sëñ Mbay nga daan maa ngi ko dégg sànq mu di ko wax sëñ Mor Mbay Cissé dani borom Tuuba ak Maam Cheikh Fall ab guro la boo xam dañ koo ŋàdd wenn xar wee ñu sant Mbàkke ko wenn xar wee ñu sant Fall yéey ko nii rek lañuy ñu demee kenn lañu kon ba mu ko yebalee ndar mu nekk fa nekkam bu jëkk nekk googee benn at rek une année la fa toog Saamante Ibrahima Fall def fa ay jaloore ca ndar yoo xam te nettali ko xëju fi jaloore yooyu mu rëy di baatin borom Tuubaa Xaadimu Rasuul woo ko mu ñëw ca la sancaat na ñeenti daar yu ngi dégg ñu ni sëñ Dame Abdourahmane Lo maam si Ibrahima Fall sëñ Massamba Diop Sam ba muy ñeenti daara yooyu ñeenti daar yooyu na bam mu ko sañ ba mu ko sañcee saa borom dogal ci ñii nii euh, euh, euh, saa borom dugg si moom mu borom Touba Xaadimu gane jamono daa yooyu ñaari at lañ ko liggéey ñu gane jamono borom Touba woo leen ni leen yéen ñeenti ñii gan gi indiwaale seen yéenti ngërëm waaye nag nana bàyyi xel ni at ma Cheikh Mamadou Sam Mbacké aleyhi feeñee ca la borom Touba gërëm si Arafaal muy ngërëm lu jëkkale di taawub ngërëm ba nga xamante ni sa borom na mu ñëwaat mu boole ko ñeenti kàngam yooyu gërëmaat leen ñooñu di seen ngërëm yu jëkk di ñaari ngërëmu maam si Ibrahima Fall waaye nag daara suñ dem Abdourahmane looje nag mooy feeñi wax ndaamaatu mooy ndaamaatu ci baatu wala ci luxu olofiya mooy mooy lu ñu tas xiir mooy bu dee tubaab réduction la tudd man maanaam ak ndaam muy ndaam guy ndaam ndaam lu ñu ne ndaamaatu sëñ ndaam Abdourahmane ndaa ndaamaatu googee fal fala daaram ja nekkan waaye maam si Ibrahima Fall boobu muri diina bara bii nu toog fi la daaram ja nekkan fi la daaram ja nekkan bii nu toog te ci jànn fii rek fii rek mooy daaru Cheikh Fall ja tu ba borom Touba ngërëmul borom dikkaat ci moom muy muy sayu ngërëm mu téye ngërëm ci loxol ndeyooram téye ngërëm ci loxol càmmeñam bara bu ngërëm bii nag fi la nu sëñ Bassirou Fall alxuraan woo muy géeju ngërëm ku bëgg ngërëm dikkal kon nun noo xanaa <laughs> du loolu kon siyaar baax bis bii sëriñ Bassirou Fall alxuraan yal na fi yàgg ti wér na am xelam dal na am xelam sedd mboolem ku mu bokkal maam si Ibrahima Fall yaa ngi ci bis bi ndax man ñëpp la amantil kóllëre ñëpp la amantil kóllëre ndax sëriñ ba sëriñ ba cokki taxawaay bi yàlla na yàgg ndax taxawaay ba rafet na ànd ak ay magam ak ay baayam léegi laa nuy sëñ Ngonda fii léegi dugg wuy jëwriñam ji baa ji di sëñ am di jëwriñ noonu la mel ay magam it noonu la ñu mel sëñ Cheikh cokki ak sëñ ak sëñ ab sëñ Bada ñéppit noonu rek fan wu gudd wa ànd ko wér sëñ Cheikh ndigal jëwriñam ju baax ja nga xamante ni moom sëñ Mbacke Faala moom it ci loola ne muy sëñ Mbacke mu sëñ Ngunda Fall mu sëñ Mbacke Fallu maam si Ibrahima Fall Babou Mourideen xoolal sëñ Bas ni mu goree sëñ Bas day wax ni suba bis bii bu ci kenn wax kenn nañ wax Seera Fall ñi bukkee loolu sëñ Mbacke Fall nañ wax Cheikh Ibra maa wax man waxuma sëñ Mbacke Fall Cheikh Fall laay wax ndax sëñ Mbacke Fall mooy Cheikh Ibra sëñ Mbacke Fall na ca koy jaare man kenn kii rek loolu aw aw waxin wolof la de aw cax la de boo nee sëñ Mbacke Fall bu génn Cheikh Fall dara du ca des de boo nee sëñ bu génn Cheikh Fall dara du ca des de boo nee sëñ Modou Moussa bu génn sëñ mooy Cheikh Fall moom sëñ Bass war naa woote ko war a woote la ku ñu war a wuyu la boo demee sëñ bi fa muy wax naan balaa nit a war a woote day jiiju ci charia tul mu taxaratu jiiju ci xaqiqatul mën a war a lool daal dal sëñ bi ci fal alxuraan dal na ko ci xam-xam dal na ko ci ab juddu kuy sa way jur sëriñ Mbàkke Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina kilifaam yëpp nangul ko ba sëriñ Momar Talla Fall mii ma wax di ñaareelu xalifa maam si Ibrahima Fall dafa woo rakkam sëñ Baara Ndiaye ñu naa ko sëñ Baara Ndiaye ndar xaaxam ni ko Momadou Lamine mu ne ko Fall mu ne ko ndax tudde nga sëñ Mbàkke Fall doom mu ne ko déedéet mu ne ko na ko tudde doom ndax ndax ñuy dimbalee ëllëg sëñ Mbàkke Fall ca la bokk sëñ Momadou Tall Fall seer ko waaw waaw muy muy te muy wëjur sëñ bi su fa alxuraan ñay dimbali ëllëg sëñ Mbacke Fall ca bokk te dimbali ëllëg nag moo gën a jafe dimbalee tey ndax tey daa féex kon kooku bu dee wajur sëñ Bassirou fa alxuraan mu nekkal ko fi di di xalifaam yàlla na fi yàgg téwér ŋànk lool yi mu mu mu mu te sëñ Tuubaa boo nee ku ko jur mu ne ko ko yar sëñ Bassirou Fall alxuraan léegi amatul benn mandarga amatul benn dàkkantal boo nee ko yar sëñ Bassirou Fall alxuraan nee neen alxuraan rek ana amatul dàkkantal néew ñu sëñ Basir Fall sëñ Bakka Fall néew ñu sëñ Basir Fall neen alxuraan rek kon loolu kon loolu mooy mooy mooy ab garaatam kon sëñ Basir Fall alxuraan ba fekkente noonu la toll magam yëpp wóolu ko sëñ Bakka Fall na ko magam yow wóolu woon ba jël seen bisu maam bi teg ko ci seen loxo mu te ko doxal te nag sëñ Bas alxuraan lii moom sëñ Amdi Xaadim ma ko wax sëñ Amdi Xaadim faam si yàlla faal nee na ma sëñ Bass day see see daa baax de bis bi kat bu jàllee mboolem mboolem li mu yor da ko séddale njaboot si yàlla faal bi sëñ Bassirou Fall alxuraan buggul bénéfice sëñ sëñ Bassirou Fall alxuraan commerce ul commerce daa commerce sëñ Bass alxuraan mooy commerce wut ngërëmul yàlla rek wut ngërëmal yàlla rek waaw ci moom moom li wutal boppam moom la ñuy wutal fi mu ne nii mboolem koo nte ni njaboot Cheikh Fall nga lu fi génne sa addiya dee na fekk fa nga ne te loolu kon nag sëñ Bass alxuraan yàlla fi yàgg te wér xam naa nu nu nu siyaar ñëpp bokki taalibe yi fi ne fi ne nii boo demee ne waa Daaru Xafoor kenn gisu njabootu maam si Ibrahima Fall gi mboolem bunti kër Cheikh Fall yi kenn gisut bunti kër Cheikh Fall yu jigéen yi kenn gisut Madial Sono Rama Mbaye ñoom ñu nga nee toog kenn disul te si Moussa Ka dani ñàngoor mu góor ak mu jigéen dangar ya ndax luggukat xàmmee na leen ca jat ya ñu ni déedéet mu ne jaan ju mu doon boo ko luggul mu rey la ko xeeb jigéeni Bamba doo am yàlla Serigne Bassirou Fall alxuraan woote na wootem ngërëm ku mu bokkal maam si Ibrahima Fall wuy si nga ko seex muy ñi sant faal muy seex yi nga xam te ne maam si Ibrahima Fall dafa seexalan seen i wajur wala seen i maam léegi fa léegi laa fa daje waa sëñ Ndiaye rokko ya te mboolem joobatug maam si Ibrahima Fall gi ñëwandoo kon li nu fi sëñ Bassirou Fall alxuraan di sàkkuloo dina ko fàgguloo te mu ngërëmul yàlla yal na ko am yal na ko am bokk la ma ci amit yal na ko yàlla dolli li nu ci am yal na ko yàlla dollil ndax fi may daanee la sëñ Fallu moo noonu doy